maaleykum salaamaaleykum suñu mbokk internet yi jaa ngeen jëf ci ànd beeg seen première site internet euh, tiv info fii ci Tivaouane comme ni leen ko waxante ak yéen muy seen émission bi nga xam ni moom mooy yitte askan wi tey nag seen première numéro ñi ngi fii ci moom mooy quartier Kuli ngir àndandoo ñoom ci jafe-jafe yi nga xam ni moom la ñuy jànkonte lu jëm ci wàllu ndox mbënd ak wàllu assainissement ak yu ni nga xam ne ñoom askan wi dëkkee ci wàllu Kuli ñi ngi jooy guddi jooy bëccëg ngir nu ñu leen def ba dimbali leen ci wàllu ndox mi nga xam ni moom moo leen sonal tey nag waxtaanee ak ñoom da may daal di topp rek ñu daal di dugg fi nga xam ne moom mooy quartier bi xool lu ñuy dundee seen ay jafe-jafe. yitte askan wi. li ma gën a yitteel ci Koulinguidia mooy ndox mi xam ngeen ni dëkk bu amul hygiène rek wér du fa am ndox mi mel def fi une semaine man de li ma ci gën a rusloo moo bi am barki démb ndax barki démb ci ziar bii dañu woon dañuy ŋàcc su ndox mi defar ko mais xool xoolal ni boulevard bi mel ak ni mu jegee zawiya bi ñun waa Koulinguidiane politique waratuñu man sama baatu dem mooy sama baatu tey waruñoo sax politique ati keroog bi ministre bi ñëw fii ndox mi ne fi lañ ko dalal albatiku dem ci fee ci euh, biir saal yi réunion fi ministre booba noor la ki njëkk a wax dani ko bu doon naweta duñ la dalal fii ndax fii nii lay mel ñu wax ba yeggal ni dañ defar si ay foos lu na ñun dañ koy defaral mais foos yi wër na Tiwaawan ba marché foos yaa nga fa te ngi jaan gi ñu dalaloon ministre bi gisuñu fi ay foos ñun kon lan la ñuy politique ñun kuli gisuñu suñu bopp ci politique ñi fi toog nag di suñuy càmmiñ ak suñuy baay ak sunuy mbokk di nu forcer ci politique bi war nañ ñoo kaasal lii ba pare soog ñoo dugal ci politique amuñu benn intérêt politique ñun gisuñu suñu bopp ci dara nii la sunu boulevard bii mel sunu gune yi di ci dugg mënaluñ leen dara ñuy siburu lu waaye am yaa ngi ko jëndee ordonnance jëndee ko ay garab lii rafetul. mu jële fi ndox mi wut ñu lu ko dindee ba pare bala ngaa mën a def dara da ngay set hygiène moo jiitu. ñun lii la ñu soxla ñu dindi ko fi defar ñu ci foos yi ni ñëpp bu ñu ndax ku ñëw ni boo gañee Koulingi Diagne gañe nga Tiwaawan waa Koulingi Diagne dëkk ci politique dëkk ci salte bi ñun amatuñ droit politique amatuñu droit politique ndax politiciens yi defaluñ ñu dara est am nañ maire ñu wasalaam yitte askan wi waaw li ma gën a yitteel nag moom dinaa la ko wax léegi mais maa ngi maa ngi lay féliciter di la remercier ci opportunité bii nga ñu may ñun ñu dëkku Kuli parce que lii nii mooy sunu objectif. daal di lii mooy sunu objectif muy ndox mi nii rafetul lu mel nii di nekk ci digg Kuli gi amuñu fu nu jaar waxuma la dara xoolal verte bi ni mu mel nii. moo ngi nii di waajal taw nii te bu tawee nii dañuy delluwaat ci même cas boo xamante ni moom la ñuy subira sapeur yi ñoo ko ŋàcc léegi même pas 10 dem nañu mais gis nga fii mu toll nii xoolal kër sëñ Mansour a ngi ne résidence baa ngi ne le zawiya baa ngi ne jumaay sëñ Babacar a ngi nii te yooyu yëpp gis nga nit ñi fii lañ doon jaar di daanu fii ci ziaru azora bi xam nga lu ne daj nañ ko fii ñun ñi fi dëkk moom dañoo rus parce que dañ naa rek de Tivaouane ndax nii la mel pexe am nañu ay pexe ma ne ko pexe yi lan la mu ne am nañu financement 3 milliards ak lu teg depuis que ministre bi ñëw fii ñu waxoon fi liñ fi wax même bu travaux yi bu ñu ci nekkee en cours ñun bu ñu nekkee situation yi waroon nañoo ñu ci riverains yi xool lan mooy seen problème su fekkee dañoo soxla tey ji ay oto yoo xam ne dañu koy ŋàccal ñu mettre ñu à l'abri xam nga ñun ñu mën a nekk ci situation yu xaw a confortable mais duñ fi ñëw duñ fi ñëw.

man kontaane wu ma ni mu ñëwee parce que boo ñëwee comme nii nga def loolu war a def da ngaa war a xool ñi dëkk si environnement yi nga xool lan moo leen metti ak lan mooy seen i problème nga laaj leen mais doo yor sa bic ak sa bind ba mu neex la rek nga tourné waat dem mais ñun buñ ko expliqué wul lan la ñuy dund moom nu ko xam bind bind dem rek c'est bien beau mais yooyu yëpp tamit fajul dara daal ay ca ñu ngi lay bégee rakk ji kontaanaat nañu yitte askan wi ngi lay nuyu waaw maa leen di fay boo ñu mënoon a wax li la gënoon a yitteel koñ bi lan la li ma gën a yitteel de mooy ndox mi ndax ñun ñëpp a siburu gis na ni may waxee nii ñu ñëpp a siburu tey bisaab laa buy laa togg di ko naan ñu ñëpp a feebar lu nu yitteel ma ni la mooy koñ bi te gisuñu kenn nag du benn autorité bu nu gis bu doon sapeur kon ñu ñëpp dee nañu suñ doom yaa ngee tëdd ñu ñëpp feebar te bu ñu seen eau a javel ak seen saabu dañ koy dem jox ña walewul bàyyi ñu ñun ñu wale si ndox mi laa jaay ndékki ku ma yéenewul doo ñëw ku ma yéene da ngay xuus da ngeen fekk ma rado mbaani ba mu leer li ñu yitteel daal mooy ndox mi. gisoo ni kuli nekk na koñ boo xam dafa gën a jege li nga xam ne moom mooy xadra bi nëga ni waroon na fekk mu sec wet leer naññ ndox du fi taxawaal. man la ziyaatam xarit bi sëñ Pape Malick ndox mi la jaar ci ndox mi la sëñ Pape Malick jaar ak gémi yi ci biir ndox mi dañ ne fii dafa taa ñun leen ñëw dañ continuer loolu lu ko gën a ñaaw sunu sëriñ bu ñuy jaar ci la ñuy jaar. Oh, ku nikk tiwaawan ni tiwaan ma tamit nii ak ni mu jigee jàkka ji kuy dem xadara dangay wax say yére di jàll boo dikkee ma ni ñu may na nga raxasu loolu nan moo ko gën a ñaaw ñun koñ bee ñuy teel ku nu ko mënta jàpp defaral ñu ko bu fi nekk sa 1000 francs wala say kaar nan ko téye defaluñ ñu dara Diop Sy daa indi oto bi dinu manqal ndox mi léegi daa sonn ndax kenn faale wu ko ñu nu faale nag defaluñ ñu dara ñun li ñuy teel. yitte askan wi. Ah, sapeur yaa ngi nii ngacc nañ ba sonn tey suba ah. mi ngi nii asamaan si xinaan na bu ñu ngaccaatee il faut ñu xëy ñëwaat te loolu dafa metti maire lañ bëgg nag mu jàpp si rek mu jeex benn yoon. Ah. yitte askan wi. ngeen suñu jàngoro ngeen ñëw taxaw samp seeni caméra donc lii mooy suñu jàngoro chaque année nag kenn lañ daan gis muy Demba loxo encore une fois ndax nañ comme ni ko rek nañu Monyo ñu daan yebalal autovidance wa chapeur bu ñu soxlaawee euh, seen moteur mo leen ci daan dimbali mais ren gisunu ko xamuñu nak mais dañ koy ñaanal wër gu yaram ak tawféex bu mu gën ñu mëna jappalé ndax li metti na suñuy doom mënuñu cee mënuñoo dund ci li ay xalé tout la ay tout tang li mag mën xalé mënu ko mënul concentré wu ci biir kër mom kese faaw mu génn faaw yi té li do bay sa doom muy tay sa peur fi lay yenn motax ngeen am fo leen jaar mais gisoo ne jot na kuli tàqalikoo ak ndox taataa. lool ndax tey ku ci meeting bëgg mu neex fii ngay ñëw samp ko wax naa leen ko meeting bi passé ku ciy de am sa programme bu fii ngay ñëw samp ko kon jot na nag ñu dimbaleñ ci lii dafa jot fii jàkka ji mënoo dem ci al aminta jaaroo nii mënoo dem julli ji jumaa jaaroo nii mënoo dem xadarata jaaroo ni te buñ doon wax capital ci Tiwaawan dama naan fii mooy capital bi al amin na ngi nii seydou Hadji malik ngi ni Serigne Babacar Rawdu serigne ba sëñ Mansour macha allah mënoo dem ci ñoom ñoom ñëpp ta jaaro fi kon donc dafa jot nak ñu taxaw ñëw dimbalañ ci lii ndax sonn nañu. est-ce que auto mbalit bi sax mi ngi faral di ñew waaw day ñew mom waaw ma ngi ñew mom bi mu tawé kérok la ñewut mais ma ngi ñew ba légui dama xamul nak ndox mi tax jaar fi wala ñing leen di dégg ci yenen gox yi nak dinañ ñuy dimbale mais li ku ko gis xamné rafetul ci lu jege ja lu jegewul jàkka ji sax waxuma laa lu jege jaak ndax nit ku nekk santem lay wër wér-gu-yaram dafa baax si doomu aadama te lii ànd ak wér-gu-yaram lu ne mooy génn si ndox kon nag suñu mbokk internet yi ñoo ko gisandoo tey li nga xam ni mooy askan wi yeewoo ci wàllu kuli ngi jaan jafe yi nga xam ne moom la ñu jànkoonteel ak li ñuy dund ci wàllu euh, ndox mi ak salte ak li leen naqari ci quartier bi nga xam ni moom mooy kuli gi jaan kon di leen sant di leen gërëm joxaat leen dig daje ci seen beneen émission yitte askan wi